ginaaw ban amalee ay ñaxtu yu bëri sa Ziguinchor ci amul benn saafara étudiant yi nga xam ne ñoo nekkee ca centre de formation en technique des eaux et forêts et des parcs nationaux euh, jël nañ bato wàcc fi ci ndakaaru ngir nguur gi Sénégal déglu leen yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ni ñu ngi koy dund ci seen centre boobile. nga xam ne am na ñoo xam ne toog nañ trois ans yoo xam ne jëluñu leen te ñenn ñi ñoo ngi jege la limite d'âge parce que euh, fonction publique balaa nga dugg trente cinq ans nga am na ñoo xam ne ren jii recrutement nga xam ne. Euh, mooy euh, ñuy jël képp ku génnee école ba ku génnee centre de Djibilor ñetteelu point bi mooy ñu éliminer maanaam jongante yi nga xam ne dañ koy def bu ñuy bu ñu war a dugg fonction publique euh, ci mm, ñeenteelu point bi mooy képp nga xam ne génne nga école maanaam ñu bàyyi la nga dem ci service bu la neex nga dem ci service eaux et forêt wala nga dem ci service des parcs nationaux Euh, ci ponk yooyu le bokk na ci ñu sopp seen daara ji daf ko ab école comme yeneen école paramilitaire yi nekkee ci réewum Sénégal suñ sukkandikoo ci seen kàddu. Euh, juróomeeru point bi mooy suñu centre boobu nga xam ne moom mooy Djibilor maam ñu defal ñu ko école ndax seetlu nañ ne maam école euh, corps paramilitaire yëpp ci mel ne ay police ay la douane ak l' administration ñoom kenn ku ci nekk am na école. ci ndakaaru na bañ janoog ak Abdou Karim Sall nekk jëwriñ ji yees guñ dénk wàllum alam gi indi na yenn ci ay saafara ci ponk yi nga xam ni moo tere woon nelaw étudiants yi lee. ça concerne maam ci choix yi nga xam ne da ngay dem parc wala euh, da ngay dem eaux et moom boobu maam nee na dina ko dina ko respecté incha allah waaw am na beneen tamit bu ñu naan dina euh, dina def benn plaidoirie maam dina maam ñu ko xew maam nekk avocat euh, mbir mi ñu sumb. ci kanamu ki nga xam ne moom mooy autorité compétente bi te yaakaar nañ ne moom mooy le président de la république. ci ñetteelu point bi. benn benn dina favoriser ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école bi ñoom ñoo génnee génnee centre de Djibélor pour office national bi euh, nga xam ne dañ koy tijji muy office national de la de la reforestation pour ñoom ñu mën nañ cee jël. beneen point mooy bu ñuy naan euh, ñu yokkal ñu suñu suñu suñu bourse yi. juróom benn ponk yi nga xam ni indiloo nañ ko Abdou Karim Sall ngir mu indi ci ay saafara daa mel ni am nañ ci xel mu dal looloo tax ñu ni dinañ delluwaat ci classe yi jàngiwaat donte la nag dinañ taaxirlu ngir déglu ko ba xam liggéey yi nga xam ne def na ko dina ko jëfee am déeta